Sénégalais yi ñàkk nañu fayda toog benn nit jàpp leen di leen def jaam di leen takkal ay lam di leen nappe ngeen toog fi ngeen toog rek ah kii warul eggali 2024 <coughs> démb gis nañu El Malick wal fajri dix huit nekk leen fii di wax rek Macky Sall di leen faagaagal benn par benn mel ne moom moom Sénégal sëriñ yi kenn waxul sëriñ yi naafeq kenn waxul Macky Sall jàpp leen di leen def comme ay jàpp di leen takkal ay lam faalewul lu justice wax justice dafa ne onze heures ci guddi bu jotee waruloo jàpp nit waroo ko indi convocation da nga war a bàyyi ba si suba si nga koy doog a indi convocation waa gars yi doo leen laaj yéen tamit xool leen niñ ko def dégg nga enlevé dañ ko dañ ko kidnappé maître Tall moo nekk noonu gis nga dugal nañ ko ci oto bi gars yi bu jeexee rek après damay continuer gis nga oto baa ngi noonu dem na lii mooy Sénégal lii mooy dëkku lu ma neex laay def tey ñu yeewu ñu ne kenn amul droit jënd essence ci butéel dégg nga dégg nga kii avocat la ñu sant sax avocat bi est-ce que Ba xaw ma waaw avocat bi may wax ni avo kii la kooku ma xa avocat kooku kooku kooku bi lu mu wax non non this is my phone am yoon ndax dama dama for téléphone est-ce que yéen a dégg léegi gis nga jàpp nañ ko yóbbu nañ ko Abass Fall voilà merci merci maanaam Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba mooy beneen waaj man jigéen laa mais kenn du ma takkal bracelet dégg nga kii moom nee na jigéen la kenn du ko takkal bracelet voilà gars yi tey boo leen gisee sax beneen décor laa nekk parce que damay dem sax dem def ay course dafa am affaire yu ma a jënd parce que dafa am benn store Walmart boo xam ne euh, Walmart foofu euh, dafay waaj a tëj té man fofu lay défé samay course dama bëgg nak dem jënd affaire yu bëri mais bala may def bala may jënd bien sûr il faut que ma défal leen live live de feu xëy nak live du gudd noonu mais bu nekkee 45 minutes dina bax parce qu'il faut que ma jënd samay affaire parce que semaine prochaine affaire bi day tej quoi wa ah, gis ngeen ma man fi ma nekk allah gis nga décor bi rafet na bateau lu weex la ñu gis sama bateau bi ah, sama bateau bi mo nekk bateau bi lay jóge mooy bateau bu weex lu weex la ngeen di gis ne ci ginaaw vraiment Sénégal 99 les 99 non dafa jot ngeen ngeen Nous dafa jot ngeen jëlé fi Idrissa Seck na di wax mais li def vraiment ci texte bind man texte bi la clochardisation de la justice bi justice bi daf ci am ah, lu leen wax ñu def léegi nak ñooñu ñoo bëgg japp Sonko rendi ko fees ko lekk yàppam loolu la wax gaay né ne gars ko loxo ñu né dañ koy tecc Ousmane Sonko nak mom néna recevoir na ay wa France tan yi les membres de l'Élysée Macky Sall loolu ko tiital gaay gën leen la gën leen partager waaw Ousmane si Ousmane Sonko wa France dañuy wax ak mom ba paré mu recevoir Jean-Luc Mélenchon xom

ñu xolli orange comme banane France bu bañee ñu effacer effage France bu bañee Auchan nous ñu dëbb leen ba mu France bu Terme. Ah, terre ba ñu yóbbu ko terre France bu bañee ah, des na total toto ñu Talent de il faut que mu respecter Sénégalais il faut que nous nous ñu wax Macky mais la France ñun en France waa Sénégal nous war jël responsabilité armée bi jël leen responsabilité gis ngeen lu xew Soudan Nous dañu yow militaires nous ngi ngi Nous xam nga ñu ngi Sénégal nous mu dem ba ay yu Soudan mu am d'état nous on n'a pas le choix vous faites une dañu nekk ci Nous sommes minorité bandit parce que Macky Sall dafay jaay guerrier day jaay bandit mu am ay bandit yu mel ne ah, Antoine Diome Mame Mbaye Niang kooku du sax sénégalais waaw Mame Mbaye Niang moom d' abord est pas un sénégalais c' est un marocain waaw moom jikko marocain bi moo deretu marocain bi dafa mel ne moo ëpp deretu Sénégal même Cheikh Bara Ndiaye sax mi ngi koy wax ne yow Seydi Ndiaye xanaa dañoo nekk. xanaa ay ndijaayam dañoo nekk nekkuñu Sénégal ñu ngi Maroc moo tax Mame Mbaye Niang muy def lu ko neex jël suñu trente milliards ba pare ñu yeewu tey ñu ñuy wax ñu ñuy wax kenn amul droit jënd essence parce que dañuy ragal ñu taal réew mi <laughs> le 17 avril amuloo droit nga jënd essence mais yow essence taal réew booy bu ñu bëggee taal réew mi dañ koy taal heure bi bu jotee ñu ne dañuy taal réew mi dañ koy taal du du ay tere nit ñi jënd bidon essence mooy tax réew mi bañ a tàkk réew mi li koy taal bu ñëpp génnandoo mënoo tere nit ñi ut essence Macky Sall réew mi li koy taal mooy Sénégal yi pare gu ñu pour jóg waaye bu ñu paree pour jóg comme ni ñu defoon le 8 mars billahi barki rasulaay Macky makki tey xaar ma taxaw fi jardin moo gën a calme makki Sall xam nga ne ñun xajuñu sa kaw waaw sa mère est marocaine du sénégalais parce que ñun sénégalais xamuñu ben nit rek bëgg taal rew dañ ko wara tak mam bay ñaan dañ ko wara tak comme lim euh, mola morgan bu bon bi bu jigéen di wax ni Ousmane Sonko Macky Sall da koy yew yobbu ko Kédougou Mame Mbaye Niang la ñu war ba mu ba mu dëgër ñu ñu rapatrier ko Maroc mam bay ñaan dañ koy rapatrier Maroc parce que ak xonkayam mu bëgg taal nit nitu fitna nit ku bon la bu jugee di jaay guerrier te yéen ay tappet ngeen ndax le 8 mars ba ñu leen jekkoo kenn ci yéen waxul kenn ci yéen ñu waxul yéen ñëpp a daw même Aliou Sall sax mu ngi leen ko doon wax après ñëpp a daw ñiy làqatu ci hôtel yi Mame ci boppam dégg naa dafa woo Sonko bëgg transhumé Mame Mbaye ci boppam dafa woo Sonko bëgg transhumé waaw non bu leen man wax sax